du ma faj hémorroïde jaaruma ci biir bi parce que tilimaayu biir mooy indi hémorroïde du ma faj impuissance sexuelle jaaruma ci biir bi parce que biir bi mooy rey góor rétrécissement sexuel ku koy am colopathie wala biir bu seera moo la koy jox biir bu tilim du ma doy naan guddal awra moom xaw ko aw ko gëwuma ko ko am mais raxas sa biir laa xam toujours ci biir laay jaar xam nga biir bu tilimee dina jox colopathie biir bu tilimee dina jox faiblesse sexuelle biir bu tilimee dina jox tànk yu tàng ci suuf biir bu tilimee dina jox bët yu lëndëm biir bu tilimee dina jox bopp bu métti tout le temps biir bu tilimee dina jox colopati ak constipation wala constipation boo amee constipation da ngay am méttitu ndigg biir bu tilimee da ngay am hémorroïde am na ñoo xamante ne dañoo am problème de dos mhm. ñuy jël pommade bu nee ci àdduna jël comprimer bu nee ci àdduna duñu wér xamul lu tax parce que hémorroïde interne la ñu am bu ñuy jël garab bu ñuy raxasee biir bi jël garab hémorroïde bi rek di ñuy wér ils n'ont même pas besoin de prendre le médicament de courbature. d'accord donc biir day indi 37 maladies. man même su may faj asthme xam nga fa asthme allergique dafa am chronique sportif yooyu yëpp dama koy faj en 4 semaines nga wér s'il vous plaît. Hmm. du ma si du ma ko faj mukk jaaruma ci biir bi. ce que la médecine moderne est incapable de fair nettoyer le ventre amuñu garabam. ils disent même que la colopathie qu'elle soit chronique ou fonctionnelle c'est régime à vie fen loo naa leen man boo amee colopathie quinze mille nga fay benn ngay naan garab bi benn jour wér nga alors mais docteur yan garab nga utiliser garab plante garab yi ñuy gis ci àll bi waaw ay ñoom garab garab yi ñëpp am laay laay utiliser mais problème bi xam dosage bi hmm. ak ni ñu koy utiliser mooy problème bi xam nga am na ñuy faj hépatite ñuy naan dañuy faj hépatite di laaj ay deux cent mille ay nangam nangam. Mhm. te man xam naa ne hépatite su ma su ma ko fajul kenn mënu ko faj actuellement nii. néew ma nag je suis le seul connaisseur déedéet demal ne actuellement nii parce que nag dañuy gëstu xamante ne suñu biir ku nekk si réseau bi xam nañ la. Mhm. ñoom ci suñuy magasin dépôt fi ñuy jaayee suñuy garab yi. Mhm. foofu la ñuy jëlee garab yi. mais gis naa ñoom ni ñuy waxee mode d'emploi bi xamuñ du noonu. dañu leen naan tàngalal kaasu ndox bu tàng def ci benn kudd wala ñu naan def ci meew garab hépatite kenn du ko def ci meew ça c'était juste une parenthèse mhm. pour revenir justement ci biir bi même bu ñuy faj ulcère gisoo au niveau de l'hôpital la médecine moderne ulcère du wér dañ lay màccaloo garab ba nga bëgg a dee man quatre semaines nga wér ci ulcère 4 semaine parce que li indi ulcère bi laay faj toujours biir bi la bu bu tit yi bu bouché boo lekkee doo doo mën a digérer muy am reflux gastrique même reflux reflux gastrique ak ulcère bokkul yooyu yëpp dañ koy traité. Mhm. ci ci lu gaaw te ñoom mënuñ ko léegi nii kii yi di remonté mën na dem ba bëtti butit yi bu ko bëttee estomac yi boo amee góom la ñuy wax ulcère boo amul góom ñu ne estomac balaa ma koy faj il faut ma raxas sa biir même dënn buy fàtt il faut raxas biir borom d'abord balaa nga koy jox garabu dënn buy fàtt wala dënn buy metti même problème de cœur il faut d'abord nettoyer le ventre de la personne est-ce que xam nga cardiaque da ngay gis koo xamante ne valve bi dafa bouché wala mu nar a opéré day fay 7 millions ni wala ñu nar ko yóbbu Tunisie muy fay 11 millions man nga ñëw fay ma 50 mille 4 semaines nga wér. billahi palpitation 2 semaines à 40 mille c'est ça que je veux imposer au monde surtout monde occidental commencé nañu ñëw parce que tubaab yi ñaanul. bu gisee patient am ñëw am hernie discale war ñu opération dans cinq mois entre temps jaar na ci jàllu faj na ko ci seize semaines quatre fois quatre semaine quatre mois à peu près. Mhm. dalay laaj kan moo rafet. tous ces autres patients futurs def leen ni dem leen senegal wala comment leen garab ci kooku dañuy ñëw nag di ñu seet si boo fajee nit diabète d' accord d' accord d' accord mhm. docteur mhm. mhm. day xaw a jaxasoo ci kanam sénégalais yi. mais dafa d' abord dafa am lu ma bëgg ñu commencé ko mu di ndoxum siti nekk loo xam ni sonal na sénégalais yi ñu ci bëri lan mooy cause ndoxum siti ak lan mooy saafara si. siti ñëpp ko am gis nga siti fii laa mënee tubaab yi fii laay dóori tubaab ak képp kuy faj fajkat ci biir ak ci siti. biir feebar biir tilim biir bu tilim colopathie constipation mooy fe ndeyu feebar yi neenaal 37 maladies lay indi siti mooy bàyyi feebar yi arthrose est-ce que xam nga arthrose siti moo koy indi hmm. siti mooy wooloo yukk yi moo tax tubaab mënu ko faj tubaab xamul luy siti médecine moderne xamuñ luy siti psoriasis sax lañ ko wooyee c'est-à-dire p psoriasis du du loolu il n'y a pour ça man arthrose je traite ça en douze semaines trois fois trois fois quatre semaines c'est-à-dire donc moins un peu moins de trois mois mm. mais balaa nga fay arthrose il faut nga faj siti quarante ngay fay par mois cent cinquante mille global wér nga ci arthrose c'est-à-dire trente mille siti quarante mille fois trois wér nga ci arthrose amul fenn sëf nag boo dof dof loo nag ba ñu opéré defal la déjà euh, euh, plastique bi ci biir moom mm-hmm. kooku mën naa la calmer say douleur mais tant que dindoo ko du ma la faj wala ngay dem ñuy injecté di tirer ndox mi. donc donc d'abord avant muy dem di seeti euh, médecine moderne yow mën nga ko faj. même bu demee seet si médecine moderne bu dee rek xam nga ñoom mënuñu lu dul joxe ay calmants ay corticoïdes. Mhm. même ku am ma rhumatoïde par exemple c'est plusieurs arthroses et rhumatisme dem ba déformer sa yax. tubaab mu ne ko man dina ma koy faj minimum ci quatre quatre mois am na ñuy di fajo nag six mois ça dépend ci ampleur rhumatisme bi ni mu déformé yax yi loolu doo ko faj fajo siti ñoom xamuñu ko ay corticoïdes lañ lay jox te ñoom xam nañ ne corticoïdes dafa am effet secondaire wax ma déjà garab yi nekk ci tubaab yi du ma tudd seen tur du ma tudd dara mhm. ah? lan lañ faj palu sax mënuñ ko pire que ça aspirine bi ñuy naan day faj boobu bu métti ak paracétamol ñoom ñoo gën a xam ne fajul boobu bu métti. ah léegi la moo tax xam nañ ko ñu koy prescrire xam nañ ko te moo wax la le encore de ça dañ lay taneloo lii créer la leneen ma jox la ma jox la euh, euh, kii bi je me je me je me je boo waxee dara nag danga nga ciy indi firnde mm-hmm. ñoom ñoo la gën a xam ne. aspirine wala paracétamol kenn du ko naan à kenn du ko naan fekk nekkoo di lekk c'est au cours des repas qu'on la prend sinon bombe la c'est une bombe hépatique ah baaxul ci foie ñoo gën a xam toxine yépp ci foie bi lañ jëm ñoo gën a xam mais arange les arrange boo moytul defi greffe wala nga am hépatite B ba léegi ñoom xamuñu les causes exactes de l'hépatite B man tey ma wax la ko. mooy lan bi. Mhm. ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam la jógee. moo njëkk ne bàyyi leen di naan di taxaw. wala di lekkee main gauche tey ku dugg restaurant couteau main droite fourchette main gauche. Hmm. xam nga et le docteur de docteur mooy Seydina Mohamed fi ko bàyyi ñu si naan tabibi qaribun hal siqaami tasmu yuqaabilu ni yowmal muqaffal mushafu araani ida ma jiitu yowman muhammadan taqa malika ma tawaq foofu mu ngi woy médecin bi léegi kooku moo njëkk alerte day indi feebaru foie nee na bàyyi leen di naan di taxaw wala di lekkee main gauche day indi feebaru rees deuxièmement xoolal ñu ñëpp bu ñu feebare suba teel lañ lay jox aspirine nga naan wala xaaji guddi lekkoo defoo dara xamuñ sax ndax reer ñu jox la aspirine mun na la jox hépatique troisièmement tout ce qui est fruits de mer day joxe hépatite am na ñuy yor hépatite ba léegi ñu ngi continuer di lekk crevette géej jën c'est très dangereux ñoom lu ñu ci xam mooy bàyyi lu niin te xamuñ ne café sax baaxu ci ataaya sax baaxu ci koo am hépatite man je te soigne ça en huit mois avant c'était six mois mais dafa am beneen remarque bu ñuy def avec des pharmaciens des médecins que j'ai traité l'hépatite au fur et à mesure faj da gën di xam affaire yi six mois la mois la ngay fajee mhm. et ma ne la y a pas mieux kuy faj hépatite amut à l'hôpital moderne dañ leen naan demal rendez-vous ay trois mois six mois un an demal ñuy vérifier actuellement le virus dort yow virus bi fu muy nalawee mënoo ko faj bu yeewoo nooy def jaaxle bu yeewoo day fekk foie bi yàqu na di sa doom sax mënu la may fois parce que bu la mayee lui il est plus exposé que toi le donateur est plus exposé que le receveur xam nga fi dee nga ku fi dof dof na nga am sa hépatite comme yenn institut ak yenn médecins yi ni ñu koy defee xaar ba affaire bi ba ci càppaandaw bi naan demal ci jallo ku ci dof dof ba sa bët yi jaune wala sa biir bi commencé néew wala sa tànk yi commencé boo ñëwee dama lay ma la faj Ah man fi virus bi dina ne laa mën a faj munuma faj parce que même hépatite B day doon tumeur bu nekkaatee tumeur munuma ko hépatite B bu am tumeur munuma ko C day nekk tumeur aussi munuma ko A bi c' les anticorps qui les prennent cinq hépatites A B D E xawma ci benn bu dul B du virus dormant ma yeneen ngi xaw ma na leer nañu nag. Mhm. fajuma hépatite C munuma ko. mais am nga ñoo xam ni jot nga leen a faj. ba ñu wér bien sûr bu la neexee nga wone vidéo yi.